su lay ñaan barkaamil la yàlla mur sadiq la seex su lay ñaan barkaamil la seex su lay yaanuy xettali wala yaanuy jàppale bi rek bi di del jëlele sa jëf yi ndax noo am gërëm tëdd ki sang Cheikh Souleymane Niane dañ la bëggoon présenter rek ci kanamu jamono parce que yaa woote bés bu màgg bii nga xamante ne mooy màggal ci Touba Daaru Medina Mbudaay léegi nak ki ngeen di gis moy sang Cheikh souleyman Niane mom la Cheikh Moussa yónni won ne ko demal mudaay bo deme nga ne leen yónnatu nga jëm ji nak mo wété bëss bobu tay ñu bu ko jox kaddu bi pour mu wax ak jami yalla yi ci aduna bi bismillah sang bi ñaan. Ah, alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah rabbil alamin mbokki julit ñi mbokk bi jami yalla yi mo ngi fi yalla yépp maa ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Eh, bés bii nga xam ne de moom lañ oote dafa am loo xam ne ñu nit dañ koo yëg te jaam bu nekk ci kaw suuf loolu mooy li war ci yow loolu mooy lan mooy jur ku nekk ba ngay ñëw dafa am loo siñeenteeg sa borom nga ñëw loolu nag am nañu ko yëg am nañu ko yëgut li ñu siñeente suñu borom te wérante bu bari am ci loolu mooy dañ xamoon yàlla ci ko ci alamul arwaax biñ nekkee ci roo yow ma alastu bi rabbikum xaaloo bàlle këro lañ xam yàlla lan mooy xam yàlla mu ne la mooy xam ci santaane te yàlla biñ koy xam ci alastu bi rabbikum booba julli amut koor amut génn mel ni amut te loolu ngay xam loolu mooy loolu mooy tawhid bi lool ngay xam julli mu baax xoor mu baax génn mel ni mu baax ñun nag loolu dañ koo desal gannaaw li gën a bari ci nit ñi te boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam oote na bu yàgg ci màkka lam leen di ooy mooy kalimatu laa ilaaha illallah yàlla wax na ko sax ci suratu muhammad xamal laa ilaha illallah nga jéggalu sa bàkkaar ñu jéggal la ñu ne ko ndax rek la mu ne déedéet ak jullit ñu góor ñi ak jullit ñu jigéen ñi loolu moo ci boole ñëpp ne kon faaw xam am waaye xam bi nag ñenn ñi dañ koo oyofal dañ loolu de xam ne waruñ jaamu kenn ku dul yàlla rek waaye soo demee ci alam nga rawaax ci ngay xamee ne xam yàlla carrément dafa am lu bokkut ak jàng lu bokku ak digle yàlla yi ndax yàlla moo sotti ruu yi ci seen kanam lim leen njëkk de mooy xamal leen boppam loolu nag moom la ñuy xamaat bi ñëwee ci alamul awaax suñ borom dafa def tafsirul quran fil quran dafa wax ne ndax nekkuma seen borom coob lañ xam ci alamul arwaax bi ñëwee ci àdduna nag yàlla wax ci alquran lu bari fàttaliku leen ma nag yi nag fàttaliku boobu fàttaliku julli lañ koy def déedéet baax na naam waaye du loolu leen ma mooy aaya bale ngay jëli Eh, bi suñ borom bi ñu xamale woon boppam nga xam ne da ngaa xamoon yàlla bi ngay ñëw ci àdduna suñ borom bu ne fàttaliku ma boo xoolee aaya boobu la nga door a xam ne loolu loolu laay wax. loolu moo tax fàttaliku sa julli koor yi ak fattaliku yàlla moom bokkul wax dëgg yàlla la lii fàttaliku santaane la lii fàttaliku ki santaane la loolu nag su ko nit ki xasee am rek jeex na alquran mu ne loolu nañ ko seet ci suñ bopp wa fi am afalaa tubsiruun seen leen mbir mi ci seen bopp lii nag ñun. lii la ñu uti woon Cheikh Moussa Cissé mu def ko ci ñun moom la uti woon ci Cheikhul Khadim mu def ko ci moom moom la uti woon ci yonent bi mu def ko ci moom. loolu kum ni ci yow rek nga mucc boo gisee ñu jàng ba pare laxas itam ñëw ci Serigne Touba kon nga xam ne euh, li ci sariya taxut. nit jàng ba pare laxas ñëw ci alaaji Malick wala nit laxas pare ñëw ci Cheikh Tidiane wala nit laxas ba pare jàng yi nekk nit ñu weex ñëw ci Baye Niass su fekkoon jullee kor ñooñu dañ dafa am xam-xam boo xam ne duñ ko jàng ci këyit dañ lay gërëm jox la ko rek soo demee ci sorotu jinne ñaar fukki aaya ak juróom yàlla def na kenn xamut xay bi ku dul man waaye ci ñaar fukki aaya ak juróom benn mu ne ilaa man irtada min rasul mënoon na wax ilaa man qiraa waaye foofu ilaa man irtada la doonte njàng am na waaye it baatin bi daal mooy ngërëm njurut ñi nga xam ne gërëm naa leen yàlla dafa baw dara gis nga ba muy wax ne kenn xamut taawil kudut man ci Ali Imran ba muy jeexal aaya ba rek dafa jëlaat beneen aaya aaya firi aaya mu ne waraasixoona fil helmi kullan amana billah lu ñi nga xam ne dañu sax ci xam-xam kon nag sax ci xam-xam mooy lan ñu ne mooy jëfee jullee koor yi ma leen déedéet sax ci xam-xam mooy nga gindeeku ci sa borom am yàqin na ko xamee woon démb ci yowma alastu rabbikum loolu moo lay may yàqin bi yàqin boobu nag boo xisee am ci nit ki mucc na raw na loolu nag lañ jëlee ci sa seriñ su la xamalut yàlla sa xarit rek la sëriñ daal li ngay ànd ak moom mooy na la yóbbu ci yàlla nga xam yàlla mucc kon nag comme dañ ciy mosaale ñu ngi leen di ndokkeel yéen waa TFM yëpp ñu ko jox nañu ci ndigal loolu la ñuy doxee fii ci mbudaay yóbbu nit ñi ci yàlla ñu xam yàlla rek waliis nag jàng mën ngaa ñàkk a jàng sax nga ñëw ñu xamal la yàlla nga xam yàlla parce que xam yàlla bi muy am booba jàng amut wax dëgg yàlla ci ruuri la dalee loolu nag ku xam sa kër bi mënal ko nit ku ko xamul doo ko mënal kenn yàlla nag zahir la baatin la moo ko wax ci alquran huwa wal awwal wa aaxir wa zahir wa baatin wa bi kulli shay'in alimun kon wax na ne mooy ki njëkk mooy ki mujj mooy ki feeñ mooy li nëbb nit ñi nag dañuy wax ne moo bind li feeñ déedéet waa ji firi bi la xamut moo tax mu ne moo bind li feeñ zahir la firi rek kon nag ñu ngi leen di baalu ak da leen di jéggalu di ndokkeel yàlla ci yéen ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah la muri saadiq la Cheikh Souleymane barkaamil la la muri saadiq la Cheikh Souleymane barkaamil la Cheikh Souleymane yi xettali wala yaa nuy jàppale bi rek bi di del jëlale sa jëf yi ndax noo am gërëm